leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen sant bu baax ci woote bi ma leen woo tey ngeen wuy si ma vraiment sama xol sedd na trop parce que maa ngi koy wax léegi sama benn xarit ma ne ko ku woote say mbokk wuy si la waaye tey yaakaar naa ni samay mbokk ak samay waa famille làmb yaakaar naa ne ñëpp teew nañu ci woote bi ma leen woowoon vraiment awma seen fay du ma limal ci remerciement yi nga xamante ni suma père yi nga xamante ni may Ba Birame wax na ko suma xarit góor a jaar na ci sànq per Pambaay jaar na ci sànq père Mourou jaar na ci. na ñëw ci li nga xamante ni mooy projet 300 lutteurs ci lañ bokk li tax ma initié ko li tax ma initié ko mooy dañu seetlu équipe bi boo dem boo defee sondage bi. yaa yaakaar naa ni lu mat 5 pour cent ñoo ci bëri année bi écrit boo dem nag Sénégal ma xalaatoon ma ne dinaa créer benn tournoi boo xamante ni dina may booy compétition ci lañ bokk nag boo ko déggee mooy mbër yi nga xamante ni dañu sonn ci écrit bi entraîné te amuñu sens ci bëri arène dinaa leen jël defar leen benn tournoi boo xamante ni dinañ ko def 300 lutteurs jël ko par département département bu nekk lu jël fa 75. bu ñu jëlee quatre départements yi loolu mooy région de Dakar tournoi bi yéen ci région bi loolu noonu laa xalaat ne dinaa ko def indi ko ci biir arène bi vraiment bi ma ko xalaatee war ko def dama ci sant suma papa yi ma lim fi léegi nii di ci sant père Modou Bey parce que trois cent lutteurs yii ñu sélectionné nii ci loxoom la nekk ci moom la nekk moom moo ci démarché li nga xamante ni mooy trois cent lutteurs yi aw ma fayam ci li nga xamante ni mooy démarche boobu mu ci def mu nekk ci lañ boobu parce que yàgg nañoo gis ay bëri yoo xamante ni dañu entraîné ba mujj bàyyi dem def leneen wala def noo xamante ni sax neexul wala desoon ci écurie bi sax moo gënoon parce que dañoo découragé ci làmb ji parce que amuñu ku leen tëggal yaakaar naa loolu nag vraiment moo gën a yokk tax ñu initier le projet 300 litres mooy ci lañ bokk parce que li tax in moo boobu du ko fàttee dafa am mbër moo xamante ni dama dem tëgg komba bi ma demee seeti mbër yi ci écrit bi booy bi mi ngi peese presque 65 kilos mu ne ma grand Ouzin yi pourtant ñun ci làmb ji nañ bokk lan moo tax ñun kenn duñu seetlu dañuy tëggal combat ci mbapat yi ci lañ bokk boobu foofu na jóge moo tax ma initié ci lañ bokk boobu dinaa fexe ba lutteurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci écrit yi am licence moo defal leen benn tournoi tournoi bi nag dinaa ci ñëw après ci kanam ni muy démarré mu ñëw ci li nga xamante ni mooy deuxième point bi ñu ne 300 lutteurs yi dinañ leen présenter ci benn journée boo xam te ne day nekk lutte avec frappe ñi ngi ci combat boobu amoon naa yaakaar sax ni tey ñaari mbër yooyu dinañ taxaw fii def seen premier face à face mais comme barki démb ñu déggoo ak benn mbër bi mu ñaan ñu ne. comme ay mbokkam dafa bëgg woo ay mbokkam kenn ku nekk wax ko ne ko am na combat diw nay bëril ak diw nañ ko may loolu parce que tey jii bu fekkee damay def point de presse bu ko journaliste yi jëlee yaakaar naa bu ñu xëyee ku dem suñu làmb wala ku dem ci li nga xamante ni mooy Leewtoo TV wasaare ñi nga xamante ni mooy Bing TV yaakaar naa ne suba combat boobu dina siiw te nee bu combat bi siiwee ay mbokkam ñenn ñi dinañ ko mere parce dinañ ko yëgaloo ñu ko te ci presse ko yëgee. man nangul ko loolu ma ne ko dinaa la ko nangul amul benn problème mais may nañ ko fii ba demee bu fekkee ne accord am la ñu waxante woon d'accord na ko rek dinaa woote yéen ñi nga xamante ni yéene ahlu làmb wax leen ne ko négocier arène nationale bu ñu yàlla dimbalee dinañ ko def foofu bu ñu amul arène nationale tam dinañ jéem a xool stade Amadou Barry bu Guédiawaye ñu defee fa li nga xamante ni moom mooy programme bi ñu bëgg def di ñëw toujours ci programme bi ñu ne troisième point bi nga xamante ni moom moo ñëw ci li nga xamante ni mooy première journée tournoi bi tournoi bi nag ñu ci bari bu ñu déggee trois cent lutteurs dañuy ñëw ne ma loolu lu mën nekkee ñetti téeméeri mbër su ñooñu fan la ñuy bëree xamal leen ne leen loolu Alioune Téere su ma juumul mi ngi ni toog bi ma koy def 2014 mooy de 65 kilos bi moom moo ko jëloon te xam na tournoi bi nan la demee woon ba mu jël ko ñi ngi leen def ay combat nommé nay doon parce que dañu ne duñu jël benn mbapat kese mbër mi mën na dem bëri ñu daan ko pare na ci ci benn journée rek combat yi jeex 300 yi jeex man dama ne du ma initier loolu damay def ay combat nommé jël 60 lutteurs jël ci mu nekk 30 combat loolu laa jël def ko par journée. kooku bi ñu ko calculé mu jox ni cinq journée premier tour yi jeex kon kooku noonu nañu bëgg a préparé parce que wax nañ sànq ci tournoi bi quatre départements yi nga xamante ni moom lañ ciblé nekk fii ci région de Dakar wax nañ ni bu fekkee Dakar dinañ dem fële nga xamante ni mooy adresse Senghor foofu nañ bëgg a jël li nga xamante ni mooy ah, ouverture lutte sans frappe bi bu ñu jógee adresse Senghor dañuy ñëw Guédiawaye stade Amadou Barry dinañ fi ñëw def fi journée boo xamante ni mooy département de Guédiawaye bu ñu jógee géejawaay dinañ dem Pikine en même temps xool naka dañuy def ba bu ñu mënee dellu arène nationale def fa lutte bi muy lutte sans frappe département de Pikine bu ñu jógee Pikine dem nga xamante ni mooy ah, Tëngéej département de Tëngéej def fa li nga xamante ni mooy beneen journée bi dellu si waat nag fi nga xamante mooy adressé moom foofu foofu dinañ fa def deux journées parce que li tax deux journées mooy ñun suñu problème mooy problème mu stade nañu am ñun promoteur yi ñu ne problème mu stade nañu am parce que tey wax nañu am ah Iba Mar Diop dañ koy tëj à partir de 12 janvier bu ñu ko tëjee benn stade moo fi nekk Amadou Bari bi fii ci négocier yi métti nañ nekk pour am ko state boobu moo fi nekk boo xamante ni ci lutte sans frappe mën nañ ko am. ci li ñu nga xamante ne moom lañ bëgg en même temps contact yi nga xamante ne moom lañ def ci ñi nga xamante ni mooy waa adressé ngor ñu ciy wax foo benn père bu ñu wax père euh, ngóor xamaloon na ma carrément que boo leen ñëwee ci làmb rek stade bi mi ngi taxaw boo leen jëlee tat bu kenn jël di ngeen mën a organiser li ngeen bëgg a def saa yu leen ko bëggee kon kooku nañu yaakaar nii dinañ mën a def suñu premier cinq journée yi nga xam te moo war dimbale ci croissant lutteurs yi kooku loolu nañ ci xalaat def ko di ñëw ci cinq quatrième point bi nga xamante ni moom mooy waa couverture maladie universelle loolu nag su ma ko su ma initier programme bu mel ni dem lëkkaloo ak ñoom parce que dañoo am benn slogan bu ñu génnee muy feebar faju làmb ji da ngay seetaan émission làmb wala nga def stade ñuy jàlle message boo xamante ni képp kuy dund làmb sa yaram dafay daw ci problème yi dal ñi nga xamante ni mooy mbër yi muy mbër feebar mënul faju mbër feebar ñu koy ketal ba ku ko gis ci melokaanam mara day taal da ngay am lu la métti man ma ne comme CMU dafa ñëw muy couverture maladie universelle ma contacté leen ànd ceeg suma benn grand ñu koy wax Moustapha Mbengue mu jiite li nga xamante ni mooy union régionale de Dakar ci li nga xamante ni mooy mutuelle de santé yi mu waxtaan seeg moom mu ne man loolu war na mën a nekk ci trois cent lutteurs yi ci contrat yi ma bëgg a liggéey ñoom mooy mbër mu ci nekk dinaa ko jox carte couverture maladie universelle jox ko ko pour mu mën a kenn ñaanalu ko kenn mooy bu feebaree faju parce dañu gis ni ci contrat bi ñuy signé ak ñoom dinañ ko ci jëndal carte defal ko ci adhésion boo xamante ni annuelle la adhésion bi nag wax ñoom chaque jour ñu jàllale li nga xamante ni mooy seen adhésion bi nga xamante ni mooy couverture maladie universelle lu dara lu dul 1000 francs la 3500 ngay ngay ngay ngay ngay am ngay adhéré li nga xamante ni mooy at bi loolu nag vraiment ñu koy biñ ko waxee ma xalaat ni 300 mbër yi nga xamante ni sélectionné leen kenn ku ci nekk di nga am sa carte at mi xëy na dina démarrer mois de février fii ba février 2021 ñaanalul kenn mais boo feebaree état Sénégal dina jël ak à vingt pour cent ci sa ordinance bi ngay fajoo wala ordinance bi ngay fajoo wala hôpital bi nga xamante ni moom ngay nekk kon loolu dama yaakaar ni muy caméraman di ñi nga xamante ni amateur góor ki nga xamante ni mooy euh, képp muy ñi nga xamante ni ñoo ne ci axlu làmb war nañu mën a jënd ci carte euh, feebar faju boobu muy couverture maladie universelle loolu moo nekkoon quatrième point bi nga xamante ni ci la nekk ni di leen sant di leen gërëm di wax ni bu fekkee am na ay questions yoo xamante ni ñu fi toog ñëpp am na lu ñuy laajte ñu laaj ñu ko ñu tontu leen ci li nga xamante ni suñu xalaat fa la mën a yem di leen sant di leen gërëm ci li nga xamante ni moom laa bu wax ji jubee nag ngeen xam ni suñu borom la lu dëngee nga xam ne man jàmm bi Ouzin rek maa ngi wax li nga xamante ni noonu sama xalaat di leen sant di leen gërëm merci beaucoup. voilà xam nga tournoi bu mel nii bu ñu demee ba di ko organiser vraiment dañuy remercier waa CNG parce que waxoon naa ni daaw nañ ko buggoon préparer di ko def. mais dañu amoon ay quelque lu ñu xawoon a manqué maa ngi remercier CNG de lutte bu baax mel ni Max ak yaa te ni mooy ñàmbe vraiment teg nañu ci ni tournoi bi war a demee bon ci problème mu trente combats yi ñu war a def par journée parce que lutte lutte cent frappe trois minutes la lutte avec frappe dix minutes te ñoom souvent dañuy bëgg géew bi dinañ mën a jël dugal ñaari combat wala ñetti combat ay saa dañoo nekk ci négocier ak ñoom parce que xale bu préparé combat ba ñëw ay mbokkam dañuy bëgg ñoom ñëpp seetaanandoo benn combat kas ci géew bi ci loolu lañuy ñuy négocier ak ñoom mais lutte sans frappe moom dangay mën a bëree ci 3 minutes rek wala ñu yax kenn victoire nga dem kon loolu noonu vraiment ñi ngi ci waxtaan ak ñoom te yaakaar naa ni lañ ca waxoon daaw ak ñun si loolu xam naa ni ci la ñuy sukkandiku mooy. dinañ mën a am loolu noonu trente combats yi ñuy def par journée parce que dañuy seetlu boo demee adresse Senghor la fay bëre ci journée ci benn jour ëpp na cinquante combats ci benn guddi kese bii nag xëy na am na comme dina mbër mu ciy bëre dina am licence dina normal ci li nga xamante ni moom lañ ñi règlement yi ñu wax ku amul licence du ci bëre. kon boo xasee ba am licence dina am réglement boo xamante ni dinañ ko jox say staff parce que yi nekkul combat yoo xamante ni comme ni mu ko doon tëggee 2014 moom dafay am règlement yoo xamante ni CNG ñoo koy teg te CNG bu tegee règlement moom ci règlement am ñuy sukkandiku kon loolu ñuy sukkandiku ci réglement bi mooy 30 combats yi ñu bëgg xam naa ni dina sotti waaye temps bi moom ci lutte simple moom xam naa ne 3 minutes la. te 3 minutes moom bu ñu ko doon calculer ci 30 litres ak préparation bi yaakaar nañ dina ci dina ci dina ci xaj lépp ci ci ci ci li nga xamante ni mooy 30 30 combats yi ñu def par journée di la sant père euh, bu fekkee waaw tous bi moom waaw loolu tous du fi ci moom tous moom du am ci parce que 60 litres boo xoolee lu mel ni Adrien Senghor parce que xat na xat boo xamante ni ñëpp ñu cee tuus xëy na nag bu ñàkk ci suñuy journée ñun dinañ ci jël ay quelques combats yoo xamante ni moom mooy grand combat bi wala avant grand combat bi ñu xool table major bi ba ñu xaman ko di nga mën a tëggal trois lutteurs wala ñetti combat di ko mën a tëgg muy six lutteurs kooku dinañ ko négocier mais soixante lutteurs moom yaakaar naa ñëpp mënuñoo tuus parce que comme ni ma waxoon rek projet bi defoon nañ ko 2014 amoon nañ ci expérience ni lépp ci waxtaanu staffu kii indi bët mi la dinañ ci discuter ñoom kon loolu daal bu fekkee leer na loolu nañ am lu ñuy tontu ci question wu père Bambaye bu amee keneen lu muy wax tamit ñu jëm keneen lu ñuy tontu. ban nekk moom maa lay nuyu bu li may tontu ci question boobu mooy peut-être ay combat nommé na wax ci problème mu mise beneen bi ci des mooy comme lutteurs yi muy journée bu ñuy def léegi ba journée bu ñuy def bëri mu ci nekk dina am cachet ci lutte simple. mbër bu nekk dina am cachet boo xamante ni dina ko am ci lutte simple bi beneen bi ci des mooy dimanche yi nga xamante ni moo nekk adressé mor ki nga xamante ni mooy responsable xamal la ma ni dimanche yëpp fees na ñun ñi ngi ciblé vendredi euh, mercredi wala samedi kon tournoi bi bu ñu dem adressé mor day nekk mercredi soir wala mu nekk samedi soir ci li ñu jotoo tënk ci adressé ngoon bu amul promoteur bu war a tëgg dimanche dem ba ci biir bàyyi mais li ñu jot a wax mooy dimanche moom fees na kon lutte simple bi samedi nañ koy tëgg bu dee adressé ngoon wala mercredi loolu moom mooy kii bi beneen bi ci des mooy tournoi bi wax naa ni mbër mu ci nekk dina am cachet mais ñaari poule mooy tournoi bi mais bu ñu demee ba ci lañ bokk plus de 65 kilos ba 70 kilos final bi bi ki koy jël ci li ñu jot a discuter dañoo nekk ci discuter mooy xool mise u 1 million lañ koy tegal wala dañuy jox 1 million cinq 500 ci loolu la ñuy nekk di négocier staff Ouzin Production mais combat bi moom ba ba ngay bëri final bi chaque combat da ngay am cachet chaque combat da ngay am cachet cachet yi nag. commencement yi dafay faible boo qualif parce que premier bu ñu waxee cinq tours cinq journée yi mu jàll cent cinquante huit mooy des seen cachet day yokk ba ñu yegg fi ñu war a dem kon loolu noonu nañu prévoir gum ci li nga xamante ni mooy tournoi wu trois cent lutteurs yi merci beaucoup bu amee ku am benn question bu ngeen jox Moustapha Mbengue waaw. ah Moustapha Mbengue jógee foofu diggante armeel yi ak fii mu waroon embouteillage lool lool lool te lii di bés bu ñu fonk ñu ngi ko seetal ñu fonk leen lool e, moo tax ñu ne lu mu ci demee ñu yoral kenn dañuy teewal suñu bopp donc ñu ngi jéglu bu baax waa presse ak ñi fi nekk ñépp kon su amee dañ la koy masawu. di la ko jaaree di ñaan yàlla yàlla àllaxira doon def ci barke yéen bi sallallahu alayhi wa sallam. gars yi gis ngeen ko accident. Ouzin Production en partenariat avec l'union régionale des mutuelles de santé de la CMU de Dakar organise un grand tournoi 300 lutteurs ci la ñu bokk kon fu mu ñu teew ñu natt léegi dafa mel ni kii moo couleur des monsieur Moustapha Mbaye accident di partenaire Ouzin Production ñu tàccuwaat ko encore une fois rek waaw comme Père Birame dañ doon xaar waa CBI mu mën a def discours bi mu war a def comme yegg si na dañ koy bàyyi moom mu intervenir discours am après ñu yeggale ñu continuer ci question yi ñuy laajte rek. waaw di dalal nag suma grand suma xarit di koy wax Moustapha Mbengue tey suñu ñemee ba mën a def lu mel ni grâce xëy na nag bu ñàkk toujours bu ñuy organiser bu ñu amee lutte avec femme ñi nga xamante ne ñoom dañuy invité ñu di ko way ñoom nañuy woo rek ñu ñëw ci lutte simple bi xëy na nag du ñàkk journée boo xamante ni dinañ invité waale ñi nga xamante ni ñooy def mooy ñi nga xamante ni mooy wayu wayu séeréer yi parce que adressé moom moom foo wax wax séeréer kon ñaari entité yëpp dinañ leen boole ci ambiance bi daal en tout cas li ñu bëgg mooy amateurs yi man di làmb ñu gis ay jeunes talent yoo xamante ni bu ñu ñëwee dañ xam ni kat ñii vraiment am nañ compétition avant ñi ñëw ci lutte avec frappe bi ci làmb ji di ci way di ci ambiance bi ci lépp loolu moom vraiment loolu lañ choisir ci journée bi ñu ngi ciy dox nag parce que ñun toujours li may rek du ñu bàyyi ñi ñu jàppaloon am na ñoo xamante ni bi ñu koy def 2014 ñu ne ñoom la ñu ngi ci ñu ngee seen i contact ba léegi ñu leen di yëgal programme bu ñu nee ay rek dinañ leen woo ñoom ñëpp beneen bi ci des mooy tribune amateur moom dinañ ko créer parce que mu ñu jël euh, comme combat nommé yi ñu bëgg def li ci ëpp mbëri ay supporters la ñu indaale duñ leen boole ak ñi nga xamante ni mooy amateur yi dinañ jël benn ci stade bi foo xamante ni dañ fa créer tribune amateur boobu nekk spécial pour amateur yi kooku dinañ ko préparer incha allah merci beaucoup. waaw kon pour yaakaar naa ne jot nga sa question dina amateur bi moo doon laajte prix bi moom moo ko intéressé wax dëgg ak ambiance su làmb ak tamit euh, sécurité bi ay ca kon danañ joxoo président euh, bu parcelle Kolo bu monsieur Sagnan ak ca bismillah euh, Sudah bisa.

xam nga euh, promoteur bi dañu amoon jafe-jafe promoteur bi daal di sëñ bi di nga dégg adresse bor ak cadre les deux organisés adresse bor organisé en même temps le même jour cadre léegi def nañu réunion boo xel nañu loolu pour ñu seet comment on va dégager euh, ces choses bi léegi keroog boo suñu duuf nee na comme dimanche yëpp sont occupés léegi même promoteur boo xam ne pour nga euh, déclenché bu bu bu nekk sànq mën na la wàññil biis bi parce que xam nga cent mille francs ngay fay pour ñu organiser adresse sa kaw léegi boo soxla nga léegi boo ko organiser sa bi mën naa la wàññil nga dëgg nga nga joxe cinquante mille francs mooy samedi le vingt et un nga def réunion avec tous les producteurs de la région donc comme c'est un grand projet pour nous c'est que la vie au niveau de l'adresse sa kaw donc je pense que des samedi promoteurs yi il faut que ñu am il faut que am promoteur ak parce que soo wàññilee sànq yi il faut ñu ñëw dégg sànq donc je pense que moom ñoo parce que sànq yi gars yi ñu ne la ñu. donc amoon mooy précisé li may wax li ngay def seen beneen dama mën wax daal je ne peux pas parler dama déglu wax à def na révélation boo xam ne xamuñu ko woon sax dana adressé ngoo cent mille francs la ñoom ils se sont battus ba waxtaan nañ ñoom promoteurs yi ak responsable yi nekk adressé pour attirer l'attention promoteurs ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, euh, amateurs yeeg euh, ñëpp koo xam ne da ngay ak waa adressé ngoo di liggéey kon loolu ak yi la bu am samedi cinquante mille normalement mercredi nag kon cinquante mille lay doon pour wax ne rek pour ragal foofu su ma ko déggee dama wax ne la pour ragal rek lay nag xam nga ñun bu ñu wax li ñu wax du pour ñun hmm. ñun pour bi ñuy jëm mais ñun xam nañu trente mbër trente combat soixante mbër mënuñu tuus hmm. mais dañ koy laaj pour leeral parce que dafa ñaar hmm. jour de frappe bi moom

parce que xamu woon sax ni dimanche beeg yooyu dañuy wàññi mise beeg yooyu mais ngóor bi ma ko woowee dafa xamal ne ma dimanche fees na samedi yi boo ko bëggee nga ñëw ñu jël jox la samedi euh, yi incha loolu moo tax affaire bi demee rek mais ñu ngi ñaan kon kuy wax tamit nga gàttal sa question rek bu ko defee ku ci bëgg rek nga laaj ci quoi. asalaamaaleykum galaay yi daal mooy wax moom si kër bëri Ouzin dégg nañu ci trois cent litres ñetti question yu gàtt rek laa bi ci njëkk mooy dañoo gis ne différence de différence de poids di bokk ci làmb nga ne soixante litres ñooy bëri muy trente combats est-ce que yaay xaar quinze bi nekk benn côté bi ak beneen quinze ci bu ñu génnee war a bëri ñoom ñaar kenn ëpp ci moroom poids trop taw toog parce que CNG waxtaan ngeen ci bëri li ci toog mooy lii yàgg nga ko bëgg hmm. amoon na ci at yu passé boo commencé woon fii ci géejuwaay CNG arrêté woon nga ci vacances la xaw ma làmb war ma am jamono boobu ba sa activité ci làmb arrêté woon ñu mën a mën ci leer beneen bi mooy ci bés yi nga jël yëpp comme sama jigéen ni ñu ko waxee lu ci mel ni mbéykat yi journée de sécurité bu baax a baax parce que dana ñuy merci merci Talibé Bamba maa ngi lay sant ci sa question yi wax bi nga njëkk da nga wax ne 30 combats mooy 60 lutteurs yi nga xamante ni ñoo war ci ñëw ci délégionnaire loolu yaakaar naa ne loolu organisation CNG la. parce que comme ñun dañu dem waxtaan ak ñoom ñu xamal la ñu mbër bu amul licence bu ci bëre te ñoom ñoo organisation ak arbitrage loolu ñoom ñooy classé mbër bu ci nekk adversaire am fu muy nekk. yaakaar naa ni ñun biñ koy def dañ ko defoon ci mbappat boo xamante ni saison dafa tëjoon ah, ah, saison bi tëj ñu organiser ko di ko organiser fii Guédiawaye